ak euh, alliance yi nga xam ne ñu ngi koy gis wala boo itam ma démarré ko sax ak Pastef ci boppam li nga xam ne mooy euh, dogal gi mu jël ngir demal boppam ci élection yi loolu ku mel ni man dama ko yàgg rafetlu waaye itam yàgg di apprécier que ne encouragé que ne Sonko ak ñim àndal dañoo war a am fit wu toll ni euh, xam ne électorat bi ñu am passé na électorat bi nga xamante ni moom lañ sax war a am c'est-à-dire mooy wax loolu mooy am na koo xamante ni allié bi Ousmane Sonko di allié ak lenn ci système bi yàlla xam na ne mën na ko yàqal mu dem àndi ak Ousmane Sonko ni mu waroon àndee ak moom am na koo xamante ni euh, xam na bu baax a baax que ne Ousmane Sonko li mu soxla ci moom fii lekk mu ngi koy gis ak ñi amul njortu ci ne Ousmane Sonko mën na réussir loolu te feeñ na euh, mais nag euh, dañ koy nangul itam lenn yi passé muy local ak législatif bu ci nekk nit ñi dañ koy jàppee erreur politique mais nekku ko parce que ci moment yooyu bu ci nekk Ousmane dafa am machine judiciaire boo xam ne dafa tegu woon ci kawam kawam maanaam état dañoo jëloon armada bi état am yëpp topé ko Ousmane Sonko c'est-à-dire que dossier sur dossier procès sur procès légui koku nag bu tollé ci fofu te doon homme politique day soxla ki nga xamanteni ni morom homme politique am surtout que kumu nek ci opposition bi toujours mu ngi gis ci wétam toujours mu ngi participer ci plateau yi diko défendre toujours ñuy yëg ne position am doonul loo xamante lu contre leader bobu la mais nekul né man sama gis-gisu bopp né Ousmane Sonko dafa jàppoon né Khalifa Sall bu muy andal mën nako yokal dara nekul ne sama gis-gis euh, dafa jàppoon né Déthié Fall bu muy andal mën nako yokku dara nekul pur bu muy andal daf ko mën a dara mais juste moment soxla wul won muy radical coaliser wu ak ñoom parce que machine judiciaire ak état bi tegu woon ci kawam loolu rek la mënoon def pour ñooñu au ñuy dem di jàppale ji président Macky Sall ca ko doon teg mais dañuy des ci wetam donte la duñ ko yokku dara euh, dañuy wax ne langug noonu du du du tuuti du néew kon nag loolu jàpp naa ne kon stratégie la rek boo xam ne dañ ci tolloon mais nag biñ ci tollee itam euh, bi ñu ko dundee li ñuy wax ne nit ki lu mu def dee bu dee bu dekkee bàyyi ñëpp xam ne yeewi askan bi benn leader moo amoon boo xamante ni ci waxam la askan daan bàyyi xel jëfam la bi daan bàyyi xel muy Ousmane Sonko ñoom leader seen bopp yàgg nañ di ko bañ ci waxu amaana kaw mais nangu nañ ko suuf parce que liy tegtale loolu mooy eh, oto buñ convoi buñ mënti ànd oto Ousmane Sonko moom la leader yëpp doon xëccoo pour nekk ci mais itam moom ci boppam pour ngeen xam ne comprendre bu baax a ne mbooloo mbooloom la da leen bàyyi xel discours Ousmane Sonko yi mu tenir ci programme yeewi askan bi ñu doon organiser boo ci xool discours ba mu fay tenir boo xam bu ko la moom ci waxam ak politique wala boo ko tamit Pastef yaa leen xel baax a baax boo xoolee terrain ak APES mitin ba ñu fa woote woon muy siga mitin boobu boo bàyyee xel mitinu yeewi askan bi la woon mais Ousmane Sonko boo fàttalikoo ci la doon waxee ndaw ñi ndax pare ngeen wala déet ba ndaw ñi naan ko waaw muy leen bu ngeen parewul wax leen ma su dee ne pare ngeen ngeen wax ma nga yëg ne booba yëg na ne ñu ngi dëgmal ay dossier am bëgg ko yóbbu justice mais moom bu daan euh, wax ak opinion bi wala boog itam bu bëggaan a janoo ak li nga xam moo di régime bi euh, dina am fayda ju toll ni yeewi askan dañuy dajale ci turam mbooloo bañ dajee mais moom dina am fulla ju toll ni discours ba mu fay tenir du amaana bi euh, mais la ci ëpp day doon loo xamante ni lu ko concerne la moom ci boppam wane ne li ñooy teg si kawam fas yéene na combattre ko moo xam ne ku ci mëntu ànd ak moom ay ndawam la wala boog itam leader yi nekk ci askan bi te jàpp naa toujours dañu wone wane ne leader bi pour ngeen xam ko ñepp ngi fàttaliku waat discours bi nga xamni defon nako na amé sen problème liste yi kené mom Ousmane Sonko mo nek en Casamance Khalifa Sall à Dakar mu ngi Dakar Déthié Fall à Dakar Cheikh Tidiane Youm keneen ak ñom ñepp ngi Dakar ñom leader yi mais mom Ousmane Sonko mo nek Casamance di régler situation bi c'est-à-dire que woowal ma diw mo wo diw nga ne ko woowal ma diw mo wo diw muy la def leen li rocc leen li duggal leen ki woo jox ma Barthélémy Dias génnal ci wax ji parce que yow nekkoo sax leader c'est-à-dire que ki am euh, taxaway bobu am responsabilité bobu ta ay leader wala bëgg tam jamono bu nekkoo sax euh, président ko conférence des leaders ndax Khalifa Sall moko nekkon jàpp na ne kon lolu rek day firndel que ne yow jëm joju ya don ki nga xamanteni ya don apparé bi nga xamanteni mo don doxal carrément le groupe yewi Askan te gis nañ ko bu baax baax bi nga xamne takaliko nañ parce que dañ newon buñ deugmalé élection présidentielle dañuy takaliko ku ci nekk dem li nga xamanteni modi sa tolu sa tolu sa tolu sa baay nga liggéeyeli sa baay comme niñ ko don waxé mais nga gis ne bi nga xamanteni dem nañ ci élection bi yewi Askan bi danaka candidat yoñu amul amoon yëpp ku ci nekk 1% ngay am wala bëgg tam zéro ci Khalifa Ababacar Sall ci PUR ci Déthié Fall ci kenen ci kenen léegi kon lool lan lay signifié mom Pastef ci boppam ñëw am li nga modi ni virgule euh, six wala lu ko upp kon lool limi muy moy mooy askan bi lu mu doon yaatu yaatu lu mu doon reey reey reey reey ci ciow ak tur ak wax euh, ken ben leader mo fa nekkon modi Ousmane Sonko légui nak lamu mu dund ci ñaari élection yoyu daf ko jox leçon que ne bu ma ak ñi bëgg maslaa ak ñom bañu ñu li nga modi assemblée nationale même chose mooy ñëwaat te bàyyi xel fi ñu jaar pour tas assemblée nationale xam nga kenn ñaanul yalla ñu weesu législatives yi ñuy tasaat assemblée nationale wala boog ñuy gis li war a tax ñu koy tas mooy am ay député yoo xamante ni pare wuñu pour liggéey ak gouvernement bi fi nekk mais dañoo taxaw ci yàqal leen ba tax ñu tas gouvernement bi parce que bëgguñu ñuy gàkkal wala boog itam di faagagal seen ay programme yi ñu am léegi nag bu Ousmane Sonko xoolee ba jël yeneen i parti wala boog itam ñoo xam ne bokkul ak ñoom benn coalition wala boog benn gëm-gëm bi ba dugal leen assemblée nationale la ko waa taxawu def moom lañ koy continuer def waaye itam li ko waa Pastef wala boog itam li ko waa PDS def moom lañ koy continuer def te loolu jàpp naa ne nekkul ngëneelam tax tey jii may wax ak yow bëri na maire yoo xam ne ñu ngi seen commune Ousmane Sonko moo tax ñu nekk fa moo ne te amaana bokku ñoon biir Pastef am na député yoo xamante ñu ngi biir assemblée nationale ba bi ñu koy tas mais Ousmane Sonko moo leen fa yóbbu biir assemblée nationale parce que ñoo xam ne sax ba ñuy yóotu maire Sonko demuloon seen gox bi mu paasee ñu ne ko yaa tax jotuñ ci maire bi parce que ñëwoo fi mais ñu gis législative ba mu fa demee ñu gagné ko ba tax ñu yegg si assemblée nationale léegi nag trahison boobu li Ousmane amee sens te itam mu dëppoog dogalu borom bi mooy trahison boobu kañ la doon gën a métti mooy mu dund ko bi mu yegg see au pouvoir cest dire que ni mu teel a xàmmee ñi mu warul àndal euh, laataaka mu yegg si au pouvoir loolu mën nga ne ndimbalu borom bi la parce que bu neexoon borom bi mu baye Pastef ak taxawu ñu kon ne di am confiance ba Pastef yegg ci au pouvoir amana sax seen ay ministre nek ci biir li nga xam ne moo gouvernement manam taxawu am ay membre ci biir li nga xam ne moo gouvernement legi fofu bu trahison ñewé jafna dina gëna metti Pastef mënon na kon di am confiance ak keneen ak keneen ak keneen mais est ce que bu ñu yegsee ba yegg ci au pouvoir ñu jox yenn poste de responsabilité trahison bi doog feñ jafna dina gëna metti kon fofu moom amana euh, dogalu borom bi la bo xamanteni daf ko fa daf ko fa daf ko fa feñal motax ba ci euh, propos yu mujj yu sëñ Moustapha Sy don na ko wax que ne même bu ko Ousmane Ousmane Sonko na doon ci cadre diine wala boog itam masla en tant que euh, xarit wala boog itam woy jur comme ça mais cadre politique buñ ci masla file que weesuwuñu élection législative parce que dañoo soxla askan bi seen bopp ñoo soxlaa xàmmee ku ci nekk yaay kan léegi nag bu ñu tànnee nag askan bi tànn tànneef googu ba pare bu dugg biir assemblée nationale ku ci nekk xam ne sa wayjur moo la fi indi après booy tàgg di gërëm nga sant sa wayjur gërëm ko bu la neexee comme que ñu ci bëree bi député euh, loolu jàpp naa ne peut-être tolluwaayu député la boo xam ne nii bu ñu fa yeggee pour xàmmee euh, ñu xam ne député yegg nañ fa askan bi itam yegg nañ fa mais le temps ñu fa yegg Euh, comme ni Ousmane Sonko def ni jël responsabilité am ne Pastef mooy demal bopam élection lolu jàpp naa ne dañ koy dogo def ci tour mais yag nañ ko def parce que législatif ak local bu ci nekk Pastef moo demaloon boppam ña àndoon si seen ginnaaw amulu kenn ko xamanteni indi indil nga leen dara parce que nak coalition ci Sénégal nit ñi dañ ci jaawale mais ben parti la xamné kumu ku d'accord na né dina la indi ay nitam muy pur parce que parti la bo xamanteni ni gëm-gëm la ñuy demee foi la ñuy demee saaru ndigal lañuy lañuy doxé parti budul dul boobu keneen koo xamante ni nga ne da ngay dem allié ji ak diw sa militant bi la gën a jege bu dee diw moomu safa ko du ànd ak yow sax xob rek nga koy yóbbul wala boo itam say oto yu bëri wala boog itam say carburant comme ça mais euh, jàpp naa ne ci élection bi ñu dem euh, Ousmane Sonko jox na possibilité Sénégal yi mooy itam respect sénégalais yi pour que ku ci nekk ñu xam yaay kan waaye itam ku ci nekk ñu xam sa ëllëgu politique lan la demee amaana nag gis nañ ay suppukanj yu bëree bëri Amadou Ba fii Kële fii ñoom Bougane fii Thierno Bokk ñoo xamante ni amaana démb ak barki démb yaa ngi doon tiiri ci seen kaw jàpp naa ne xel dina xaw a lool ci ku mel ni Bougane Gueye wax dëgg yàlla ak départ ba nga xamante ni jëloon na ko surtout que waxuma sax départ doon teg ci loxo ñi nga xamante ni ñoo di Macky Sall ki fi bàyyi ko donte la yooyu yëpp daanaka uh, ay waxu naxa sa xandang la yoo xamante ni 2019 kon amaana deal amul woon wala boog itam deal dafa amoon beneen ba taxoon mu bàyyi leen fi parce que même 2019 fi ñu leen bàyyi woon jàppale ci Idrissa Seck bi nga xam ne bi élection yi passé la ne man deal naa ak uh, Macky Sall ba sax dem naa uh, mburoog soow la ñuy mujjee def mais loolu dérangé wu ko woon léegi kooku noonu mën a ñëw duggaat ci benn coalition boo xamante ni da nga fay gis ay profil yoo xamante ni démb ak bërki démb yaa leen maanaam bi ñuy taxawal da nga séparé woon ak ñoom bi ci mujj rek mooy yeeyu askan bi bi ñu koy taxawal buggaan dafa ñëw ne dëmmante moo fa nekk si biir waa dëmbante googu moo ñëw jox loxoom yuum bi nga xamante ni pire la moo nekkoon ci biir ndëmbante googu waaye itam keneen ki nga xam ne moo di Xalifa Ababacar Sall bi nga xam ne moo jiite woon conférence des leaders ci ndëmbante gi Déthié Fall bi nga xamante ni moo falsifié woon wala boog itam moom lañ jàpp ne bokk na ci li ñi yàq dossier wu euh, élection boobu yu yeewu askan bi moom nga fekk ci biir ndëmbante googu dugaat ci biir jàpp naa ne euh, tuuti xel mooy doxal li nga xam moo di politique donte lee nag euh, am na ñoo moom peut-être euh, gëj naan seen i comprimé mën na leen jàpp ba yenn yi beneen bi boo ko fàttiwul tuuti màjj màjj de euh, ci fàttali euh, mu di Thierno Bocoum pourtant bi ñuy taxawal yeewi askan bi képp man dama am ñu bokk ci ñi am sensu woon këram bi muy def conférence de presse di tiire ci kaw yeewi nañ ko doon nama tëralee te pourtant même leader yi ñoo nekk ba léegi ci kii bi ñoom nga ñëwaat dajewaat maanaam foofu yeewi la goo xamante ni sauf Pastef la <laughs> mën nga ko tuddee noonu parce que amaana euh, Sonko la fa doon dérancé moo taxoon bokkoo Sonko bokkatul ci yeewi ñëw nga léegi nag nee ngeen lan ngeen koy def vaar xaw ma pour nangam pour dëggal kaddu wala boog itam sàmm sa kaddu euh, ku askan bi wóoluwul sa kaddu wax dëgg yàlla ba faluñ la ci élection présidentielle nga wax li nga xam. wax li nga bëgg wax li nga mën mais askan bi dégguñu kàddu googu boo ñëwaatee nga ne da ngay dëggal kàddu wala boog itam euh, sàmm kàddu jàpp naa ne loolu fooy xelu askan bi la mais élection yi passé dafa am leçon yu bëree bëri yoo xam ne daf ko joxe keneen ki ki ma ci laafaale mooy Pape Djibril boo xoolee daanaka mën nga ne moom itam euh, amul choix la demee amul choix maanaam dem na ci ci ci politique ñu gëmloo ko loo xamante ni bokkul ak réalité bi nekk dëgg-dëgg daanaka moom Bougane ñoo bokk ci côté boobu yëg nga ne Bougane wax dëgg yàlla ñu bare ba lañ doon xaar ci moom ak yàlla lañ doon xaar mooy mu def liste boppam ba nga xamante ni moom buñ yeggee ci élection maanaam fi Ousmane Sonko woo Pastef nii moom lañ doon xaar Bougane mu woote fa maanaam bu comme moom da doon def dualité entre Pastef et gëm sa bopp moom euh, Ousmane Sonko wax dëgg yàlla bu Ousmane Sonko wootee liste boppam ci li xam ne di Pastef lañ doon xaar moom itam ci Bougane te mu tax si yaakaar ñun ñëpp nag mooy mu def moom itam liste boppam xam ne maanaam buñu yeggee ci élection bi bu dee am nañ poids bi dëgg-dëgg bu defee dañuy mën di participer ci plateau yi ñu leen di bàyyi xel fu ñu invité ku bokk Pastef invité ku bokk gëm bopp après ñu mën a bokk ci champ politique bi mais bu nangam pour cent sax day wutiwaat lu mu lay victimise wu wala ne diw ak diw ñoo bokkoon ci coalition moo tax wala boog itam campagne yu woon comme na koy waxoon maire Moussa Sacré-Cœur kon jàpp naa ne daal wax dëgg yàlla euh, coalition la yoo xamante ni gisuñu ci ñun benn cohérence boo xamante ni am na ko wala boog néew na ci yoo xam ne am na cohérence parce que mënoo tay tay tay nga tiim di ko saaka di ko xas lu matul deux semaines trois semaines nga ne ñëw naa def ak moom allié pour lan nga ne da ngeen askan bi xàmmee woon nañ leen ba tànnoon nañ des mooy ñu confirmer ko ci li nga xam ne moo di moom la ñu dëg man te jàpp naa nag ne dina jafe lool ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi la ñu mënul woon wax Sénégalais yi ci mars bi passé ñu waxaat ko Sénégalais yi ci jamono bii ñu mën ko dégg manam amna na ku koy wax keroog maniko election bi bu amé lenn lu ci am comme comme comme conséquence lenn lay don moy taux de participation bu faible mais sénégalais bi nga xamanteni en mars 2024 gëmoon na procès wu Bassirou Diomaye Diakhar fay bi mu yor ba mu voteel ko ngir mu yex au pouvoir koku digënté bi gisagu fi lu wara tax du wateel procès bobu légui diggante bi même bu fi gisoon lu tax du wateel procès bobu gisul fi kan la wara dem